sa ngëm yàlla dafa war a feeñ mooy ci sa dund sa ngëm yàlla war na feeñ mooy ci sa alal sa à sa alal sa ngëm yàlla war na ci feeñ sinon rek mbugal lay doon mooy bés pénc sa ngëm yàlla dafa war a feeñ ci sa nguur mooy ci sa pouvoir tey moo xam daa am benn pouvoir boo am mën a signer wala boog mën a joxe ay décision walla book sax nga nekk njiit moo xam maire nga moo xam même policier nga moo xam homme de loi nga moo xam président nga en tout cas nga am sa pouvoir sa ngëm yàlla daf cee war a feeñ mooy yoon nga ci war a def lu baax nga ci war a def sinon rek mbugal lay doon bés penc yàlla mooy wax ca suratul xàq mooy saar numéro 69 demal yàlla di wax naan mooy ñoo xam ne da leen mayoon nguur ñu nekkoon ay président nekkoon ay njiit nekkoon ay roi waaye loolu seytaane naxoon leen ci waaye jaamuñu ci woon yàlla defuñu ci woon lu baax subhanallah mooy que ni jàppale wuñu woon mooy seen population ñi nga xam ne ñoom la yàlla tegoon ñu nekkoon ci suufam mooy taxawu leen woon mooy que ni alal ji pasar pasaree ko mu ngoog nekk di caaxaane mooy lu ñëpp bokk euh, subhanallah euh, pouvoir am nax ko ba mu fàtte yàlla pouvoir am nax ko ba mu fàtte ni day dee kooku noon borom sant taala moo ñu koy wax dem leen ci alxuraan yàlla mu ne ñooñu yàlla nee na safaral leen dencal ndax seen téere dañ koy jot ci seen loxo gauche nar a dem safara di rëccu naan su ndekete sama alal njariñu ma milliards yi ma amoon mu nekkoon ci ay compte amul benn njariñ subhanallah pouvoir bi ma amoon armée bi ma amoon ma daan décider ndekete amul benn njariñ ndax tey safara laa jëm yàlla ne malaaka yi jël leen kooku ngeen takk ko ngeen diri ko yóbbu ko safara subhanallah déglul yow mi may alal waaye yow mi yàlla may pouvoir nga nekk njiit moo xam président nga surtout déglul bu baax borom santaala demal ci suratul xàqa mooy deuxième page ba yàlla mu ne bandaulam cheytan rajim mu ne wa amma man utiya kitaabahu bi shimali fa yaqulu ya laytani lam uta kitaabiya ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه lan moo tax mu naan sama pouvoir njariñoo ma sama alal njariñoo ma ñu koy diri di koy bu safara yàlla mu ne إنه كان لا يؤمن بالله العظيم mooy gëmul woon borom bi subhanahu wa taala allahu akbar innahu kaana laa yuminu billahi alazim wala yaxuddu ala taami lmiskin mooy néew di doole yi subhanallah population peuple nekkoon ñu néew doole mu subhanallah alal ji ñoom gisuñu ko pouvoir bi maandu te ñoom gisuñu ko justice gisuñu ko ci borom santaala loolu moo mu yóbbu leen safara mbugal leen yàlla nañ ci yàlla musal kon yow mi am pouvoir yow mi am alal fàttalikul bés penc safara fàttalikul bés penc ci yàlla la àtte fàttalikul bàmmeel yow rek yaa fay nekk te di nga layoog sa borom subhanahu wa taala